tey sax incha allahu duma jot a ñëw ci ahadis yi maanam ndax rajmu sax na ci lislaam walla déet loolu moom bu ñu demee ci ahadis yi dañuy fekk ay hadis yu wér péng yoo xam ne àndul ak benn laam-laamee nga xam ne kenn mënu koo weddi lu dul ku fas yéenee weddi ne jant bi du fenk rek moo mën a weddi yooyu ndax yooyu dafa leer dafa leer te ahadis yooyu buñ ca demee dañuy fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rajmu na ay jullit waaye sëriñ baaba moom lim ñu bëgg a xamal mooy naan yonent bi ba muy rajmu yahud ya mu mel ne yonent bi ay yahud la doon rajmu yonent bi ay jullit dafa rajmu ay jullit loolu na leer waaye su fekkee dafa mel ne dafa maanaam rajmu daal dañ koo jagleel yahud ya yonent bi ba muy rajmu ay yahud loolu ak lëntal lay doon waaye mbiru ahadis yi nga xam ne ñëw na di saxal ne eh, eh, ki sangewu su njaaloo su seede yi yi war a dajee yëpp bu dajee dañ koy dañ koy rajmu ahadis yooyu du ma ci ñëw tey waaye ci benn aaya rek laa bëgg a ñëw mooy aaya bi nga xam ne ci la baaba jaw sukkandiku pour wax ne eh, rajmu saxul ne même bu ko yonent bi daan def itam léegi bi aaya yi wàccee léegi loolu yonent bi defatu ko ndax léegi nekkatul aaya daal dindi nañ li ñuy tuddee loolu laa bëgg a leeral pour wax ne ni mu firee aaya bi du noonu te mooy aaya bii di wa di wax ne wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al muxsanaati al muminaati fa mimma malakat aymanukum min fatayaatikum al والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وعتي الأجم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات duñu ñu mën a jël aaya bi di firi aaya bi lépp baat par baat waaye dafa am ay baat yoo xam ne bu ñu ko fëla fëla lënt gi ci baaba jaw fi lënt gi toll foofu lañuy ñuy dàkk te mooy baatu almuxsanaat almuxsanaat li mu ko firee ci aaya bi mooy jigéen yoo xam ne dafa sangewu te fekk aaya bi jubluwu ci loolu gis nga almuxsana wala al al al muxsin dana firi maam ci góor jigéen yépp al muxsana day firi jigéen ji sangewu dana firi loolu danañ ko jëfandikoo itam jublu ci loolu waaye danañ ko jëfandikoo baat bi te duñ ci jublu jigéen ji sangewu dañ ciy jublu gor su gëm yàlla gor su jigéen su gëm yàlla dañ koy wooye al muxsana loolu moo tax boo demee ci saxiixul buxaari yi بودم في كتاب الحدود كفاهيه البخاري أمنا بنتو بمو تدكو باب رمي المحصنات باب رمي المحصنات صادم في فتح الباري بو ابن حجر العسقلاني دفكو في رواحنا قوله باب رمي المحصنات أي قذفهن والمراد الحرائر من لم جبلتي المحصنات mooy gor yi alxarairul asifaat kon baatu almuxsanaat fii ci aaya bii nii nii nii nii firiwul ku sangewu wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha almuxsanaati almuminat mooy koo xam ne mënula takk gor gor gu gëm yàlla loolu lay firi léegi nag su fekkee moom daf koo firee koo xam ne mënula takk ku sangewu bu fekkee moom noonu la ko firee bu demee ba ca mujjantalu aaya aaya aaya ba fa ida oxsinna fa na nisfu ma ala almuxsanaati min alazab bu demee ba foofu day am problème loolu moo tax ma ne bari na ku ne man de ci alquran la sukkandiku ci li may wax waaye sukkandikuwul ci alquran ci ni muy firee la sukkandiku ci ni mu déggee ni muy firee ci la sukkandiku dégg nga ma ñëw ba tey ci baatu باتو المحصنات ابن حجر دفا وخني والمراد يعني بالمحصنات الحرائر العفيفات موي اي غور يو جيجين يو گم يالا تفغو من ولا يختص بالمتزوجات مانام باد دي جاغوول جيجين جو ام بروم كير بل حكم البكر كذلك بالاجماع mu ne même albikru jànq bi sax muxsana la bu fekkee nekk na gor gëm na yàlla dafay nekk muxsana ndax baatu muxsana ni muy tekkee jigéen ju ju ju sëy ju sangewu noonu lay tekkee gor su fegu su gëm yàlla loolu moo tax boo demee ci alquran nga ciy fekk والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم لجي والذين يرمون المحصنات من lañ koy firee ñi nga xam ne dañuy jiiñaate jiiñ ñu sangewu wala dañ koy jiiñ rek gor soo xam ne gor su jigéen su gëm yàlla ndax muxsanaat jooju ki sangewu rek la yàlla wax ne ku ko jiiñ njaalo nañ la dóor yari yoon waaye bu fekkee ku sangewoogul ku ko jiiñ njaalo même boo indiwul ñeenti seede itam dara waru la ci est-ce que loolu la wax waxul loolu léegi nag aaya bii nii di waman lam yastati minkum tawlan an yankiha al muhsanaat képp koo xam ne baatu al muhsanaat xamoo lu ci yàlla jublu mënoo dégg aaya bi hukk waaw benn baat boobu rek boo xamul lu ci yàlla jublu mënoo dégg aaya bi léegi nag ñàkk a mën a firi baat boobu firi ma yàlla lan lay waral day waral daal di day waral dàq mboolem xadis boo xam ne daf doon wax ci ar rajm te Omar ibnul Xataab wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rajmu na gannaaw yonent bi ñun itam def nañ ko te yonent bi ne woon alaykum bi sunnati wa sunnati alxulafai rachidin mu ne yonent bi def nañ ko ñun itam def nañ ko gannaaw yonent bi def naa loolu doy na sëkk ci daj ji li li di di di sëriñ Baaba Jaw doon wax te bu insaaf amee rek bu ñu ko dégloo bu baax settantal ko dañuy gis ne nimu mu doon firee aaya bi du noonu loolu jàng na aaya bi mais bimu ko jangé ba nopi lim mu doon wax ak li aaya bi doon wax bokku ñu ñaari yëf la waaw loolu mom signal gauche la jàdd droite wala signal droite jàdd gauche buñu démé demee ci beneen aaya danañ fekk sunu borom di wax ne innal ladina yarmuna almuxsanaati algafilati almuminat luinu fi dunya wal axira wa lahum adabun alim almuxsanaati foofu ba tey jubluwuñ ci euh, euh, ki sangewu ki sangewu mi ngi ci biir nag kenn génnewu ko ci waaye jubluwuñ ko ci moom kese même ki nga xam ne mësula sëy jànq la mësula sëy di gor ba noppi gëm yàlla ku ko jiiñ ak njaalo lañu la cay teg soo indiwul ay seede yu yu doy lañu la cay teg mooy la ñuy teg ka sangewu boo ko jiiñoon njaalo تنيوم يب في آية بنمو لنتو دموي المحصنات إن الذين يرمون المحصنات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء بني دمي تي حديث يونتي محصن جوجي محصن جوجي نواتنا تي حديث بيمي وخيني اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات كبجة بميلم جروم نياريل بولنا چا وحنا چا وقذف المخصنات المؤمنات الغافلات كون باتوا المخصن نيواتنا فارسك بات بي الفو نيلي جنتكو المخصنات الفوني نيلي جنتكو ndax mom daf koy firé sangewu baat bi dana firi lolu mais fi firi fii nii nii nii ci siyaaq bii nii firiwu fi lool te nuxaat yi dañuy wax ne as-siyaaqu muhaddid léegi al imaamu Shafii dafa wax te li lii nii ñu ko firee nii pirin mii nii ci baatu al muxsan boo demee ci al qurtubi da ko fa fekk boo demee ci ibnu kasir da fa fekk mais su fekkee yow mi tafsir kutubu tafasir yi da nga leen a ihmal teg leen fële yow jël sa xalaatu bopp nii rek di dem ah mais loolu loolu kenn du ko mën a dégg beneen bi itam mooy fii ku mu neex lu waaye wax nga weddi ko ndax weddi mom mom dafa jafé wul mom mom kum neex nga bañ ci weddi mais bu insaf amé amna lo xamné kenn mënu ko weddi wala ko ko weddi do doon kenn kon légui al imaamu shafii dafa wax lolu ibn kasir nettali na ko walam yaxtalifu walam yaxtalifi al muslimun في أن لا رجم على مملوك في الزنا من جل نيوت ونكنة كو خمنا أب جاملة كن دوك رجم بنجالو من وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب من ندخ آية بي دفا تك نيوم للن ور بنجالو لور كسين كو موي جن والو لور غوريا المحصنات gor yu gëm yàlla ya almuxsanaat de gor yu gëm yàlla ya mu ne wal alifu wallaamu fi lmuxsanaat lil ahd wa hunna almuxsanaat almadkuraat fi awali l aaya mu ne al alif geeg laam gi lil ahd la dégg naa oustaz Baba Diaw di ko wax tey mais bu xamee ne lil ahd la nga xam ne léegi kon da ngay delluwaat te ñun tuddoon waaye bu fekkee baat bi mënoo koo firi nag da ngay amaat pro da ngay am problème rek waaw mu ne bu waxee ni fa alayhinna maa ala al muxsanaati alif ak laam googu daf lay delloo ca baat ba ñu njëkk a tudd ca aaya ba muxsanaat dañuy tuddoon ca aaya ba ca mooy waman lam yastati minkum tawlan an yankiha al muxsanaat kon képp koo xam ne aaya boobu li muy tekki mooy képp koo xam ne yow amoo am amu wala man-manu mën a takk gor su gëm yàlla nee na boo amee jaam bu gëm yàlla nga takk واو فمما ملكت ايمانكم فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان من نك فاذا احصن اوكي فاذا احصن لغي نك بونو سانيو نيوم نيوم جام نيوني léegi nag bu ñu leen takkee léegi sangewu nañ ndax ki ñu takk jigéen ji bu amee boroom kër ba ànd ak moom day nekk muxsana day nekk muxsana léegi nag mu ne fa ida uxsinna bu ñu sangewoo fa alayhinna war na leen nisfu maa ala al genn wàllu la war gorña min al adaabi ci mbugal mais jubluwu ci genn wàllu lawar ñasangewu comme nag daf ko firee genn wàllu lawar ñasangewu te moom comme ñi sangewu dañ dañ leen di rajmu te rajmu kenn mënu cee jël ak genn wàll moo tax mu ne ak dee kenn mënu koo xaaj fekk al muxsanaat jooju moo ko indil problème ñàkk firi baat bi prix mi yell moo ko moo ko moo ko mooy problème bi parce que baatu al muxsanaat fekk nañ ko ci alquran ci yeneen yeneeni barab te firiwul ku sangewu fekk nañ ko ci xadis ay yoon te firiwul euh, ku sangewu kon léegi naka lañ koy euh, naka lañuy jàpp ne fu ñu ko fekk rek ku sangewu la ñu koy fire dëgg la al muxsanaatu dana firi loolu waaye du ko firi fépp du ko firee fépp loolu moom ku jàng arab xam nga xam nga ko baat dana firi lenn fenn waaye du foo ko fekkati rek lam doon firi fële loolu la fay firi dégg kon nag comme euh, comme imam Shafii nee na ku ne xam na ne ab jaam moom bu njaaloo kenn du ko kenn du ko rajma léegi nag kon bu alquran waxee ne bu ñu sangewoo bu ñu njaaloo dañ leen di teg genn wàllu lañuy ñuy teg gor waaw léegi nag bu fekkee alif gi ak laam gi lil ahd la te bu nekkee lil ahd daf lay delloo ci muxsanaat ja ñu njëkkoon a tudd ca njalbeenu aaya ba te mooy waman lam yastati minkum tawlan an yankihal an yankihal muxsanaat te muxsanaat jooju firiwul woon ak sangewu lim doon firi mooy ay gor yu gëm yàlla kon bu ñu waxee ne na alayhinna nisfu ma ala al muxsanaati kon nisfu ma ala al muxsanaati kenn du ko firee genn wàllu euh, ak dee pour wëlbatu ko ba koo dàq du ko mën a firee noonu la ñu koy firee mooy genn wàllu la ñuy teg gor su njaalo mustanaat jooju gor lay firi comme na mu ko firee ca Buxaari boo demee ba muy wax ba muy wax baabu ramyil muxsanaat comme ni ko fatxul baari indee ci ne lim ci jublu mooy alxarairul afifat comme ni ko alquran indee ci walladina yarmuuna al muxsanaat comme ni mu ko indee itam ci inna alladina yarmuuna al muxsanaat ak ni mu rote ci xadis ci wa qadful muxsanaat kon baat bi problème mu baat bi dong moo doon problème mu euh, Oustaz Baba Diaw nangu na ko ak ñàkk na ko nangu lii mooy problème léegi nag lii nii aaya bii nii ana kan moo ci mën a sukkandiku pour dàq ahadis yi nga xam ne ñoo rot ci rajmu pour dàq li Omar ibnul Xataab wax na yonent bi def na ko ba jóge fi ñun ñu def ko léegi nag eh, yonent bi ay yahud la daan rajmu loolu lan mooy dalilam